si gi ma lakkandoo ci wàllu ñàkk xëy fii ci réewum Sénégal mu mel ni nag am ay lijaasa taxuta am liggéey mu doon nag ab situation bu doy waar ndax ku ci nekk bëgg na lu mu suturaale boppam bañ toogaay gi nag tax na fii ci Ouest Foire góor ak jigéen soobu ci seen liggéeyu bopp métti naa am déet li sabab seen liggéey yi lay mooy rek bañ di def lu ñaaw. bu ma tàmbalee business bi yàgg na mais jamono neexu léegi. boo tàmbalee business lu yàgg sax doo gis sa bopp. li ngay ñafee loolu rek ngay gis sa bopp. dëkk bi ñëpp ay ñafe ñëpp a sonn ñëpp nit ñi bëgg nañ liggéey mais liggéey moo amul si dëkk bi xale yi bëgg nañ liggéey mais liggéey amul même booy jaay ndox sax war nañ la mën a jàppale nga nga jaay ndox pour ñu ñu xale yi mën si gis seen bopp te loo gisu sa bopp doo si liggéey. milieu bi euh, parce que man dama juddu bëgg ko nag man yàgg naa ci milieu bi parce que mën naa ne sama adduna yëpp ci mécanique laa ko def xam nga mais par par exemple nag euh, sama côté garaawul quoi mais am na ndaw yu bëri parfois may xam maa leen di xool souvent bu ñu nekkee ci mbir ñi ñu fekk leen fa yëkkati leen parfois man parfois loolu damay touché quoi damay métti mais ah sama côté moom franchement maa sant yàlla. non nga rek liggéey bi moo mel noonu loolu moo tax ñuy liggéey si lavage yi mais am na xaalis na am na xaalis bu dee am na client am na xaalis waaw mais nag am nga ñàkk liggéey rek daal moo tax ñuy def si lavage yi quoi. waaw di nga si gis sa bopp parce que loo am di nga dem marché di ñëwaat recommencer sa njaay parce que lii sax jaamu yàlla la. waaw ça va maa ngi ciy gis sa bopp. maa ngi ci gis sama bopp maa ngi ci gis sama bopp moom. waaw moom c'est bon waaw sant yàlla bu jigéen ñi dama bëgg ku nekk gëm sa bopp yàlla am na lu mu maye jigéen ñëpp nañ gëm seen bopp jaay crème jaay ndox sa bu ko kenn bañ nañu ñafe nit da ngay ñafe soo amee li nga moomal sa bopp di ko joxe wala nga koy lekk wala nga koy maye da ngay kontaan parce que yaa ko ñafee sa bopp gumboo la feñoo laa gi woo demal ñafe loolu laa gëm nit da ngay li nekk si yow bu ko dindi si lu ñàkk fayda jigéen day diiñ dama bëgg ngeen diiñ. pour le moment bi ñu toll nii kenn warul xeeb dara kenn waru xeeb dara parce que tey jii nii nit ku ci nekk boo xëyee même juróom yi ngay am euh, wala cent franc yi nga am bu jox ko sa njaboot ñu dundee ko dama ne ko santé la la quoi mais boo xëyee rek toog di état état crois que seen affaire baax na ba pare quoi ñun ñoo fi des ñun ñëpp ñoo war a defal euh, liggéey demal suñu bopp man loolu laa gis quoi man na xaaruma kenn si dara quoi xam nga maa ngi dund maa ngi gérer samay affaire maa ngi gérer sama njaboot mais xaar ma kenn ci dara quoi. ñi nga xam ne nag ñoo jot a àddu ci suñu micro lañu dénk rek ci lu néew mooy naam ñooy gis seen bopp ci seen liggéey xanaa rek di li ñaan nguurug Sénégal mu jàppale ndaw ñi ci ay xëy.